bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbooleem mbokk yi nga xam ne yéenay ànd ak ñun ci Ngaabu TV ci weeru koor gi dañ leen a indil programme bu am solo muy nag jàng alquraanul karim weeru koor mooy weeru alquraan ci la alquraan wàcc léegi nag ñu jagleel weer wi nag jàng alquran bis bu set dañuy jël ay aaya jàng ko ba maîtriser ko nga xam ne dañ ko mën a jàng normal buñ paree daal di koy firi noonu la ñuy def ba weer wi jeex fuñ ci àgg rek incha allah kon yéen ñëpp abonné leen ci canal bi te topp ci bind yi incha allah yal nañu yàlla barkeelal waxtu wi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ñëw nag ci bind yu am solo muy jàng alquranul karim ab jullit day li ëpp solo nag ci dundam mooy mu mën a fexe nag ba liir téere borom bi tabaraka wa ñi bëgg a fer ji nga xam ne moom dañoo mënagul araf yi yooyu def nañ ci am njàngat ay dars yoo xam ne ku ko topp danga mën a dem ba mën a liir normal léegi nag ñi nga xam ne mën nañoo liir même ku mënta liirit nga ànd ak ñun rek ñu tàmbali nag di jàng alquranul karim tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim njëkk jàng suuratul fatiha suuratul fatiha kon tey suuratul fatiha la ñuy jël alfatiha saar wi moom lañuy ñuy jullee kuy julli ku ne da nga saar wi ci rakka bu ne fu ñuy tàmbalee bismillahi rrahmani bi as booleel bis bis mi bis mi bis lii bi la lii nii lu mel ni alif la waaye doo ko jàngaale bi baa gi ngay jàng bis mi bis mi bis mi loolu mooy ci tuuru yàlla ci tur ismu mooy tur nga ne bis mi gis nga al gi moom moom ngay booleek mi gii kon fii day am shadda ne mil bis mil lii moom la ñuy tuddee hamzatul wasl foo gis ci kaamil bi lu mel nii lañ ciy teg mooy alif la goo xam ne boo booy jàng bu dee ab baat da ko jiitu da koy booleeg araf ko jiitu moom kon doo ko jàng waaye bu doon nag ci baat bi ngay commencé boobaa da koy jàng al a waaye bu fekkee ne aw arafa ko jiitu doo ko jàng moom kon da naan mi ne àll mil bis wala sukkoon la bis mil bis mil nga teg ci muy laa waaye lii alif gi moo ko xëcc laa laa alif gi dañ la ko tegal nii mu taqaloo laa bismil laa gis nga baatu allah nag heure bu bu ko araf wi ko jiitu bu dee araf wi ko jiitu dañ koo kasra mooy kasra moo ci nekk kon laa ngay wax laa maanaam dangay ngay tarqiq mooy sa giñim dafay ubbeeku laa laa amaa bu doon nag araf wi ko jiitu dañ koo maas ci kaw boobaa loo ngay wax loo loo mooy tafxiim sa giñim ngay tëj loo kon fii araf wi ko jiitu kasra la moo tax laa bis mil bis mil bul wax mi al ah, ah alif gii doo doo ko doo ko tudd danga koy effacé mil laa laa bul wax loo laa hi hi bis mil laa hi mil laahi mooy ci turu yàlla laay tàmbalee lépp looy def rek danga koy tàmbalee ci turu yàlla kon ci turu yàlla laay jànge ci turu yàlla laay naane ci turu yàlla laay lekke loolu loolu lay firi bismillahi nga daal di ñëw gis nga alif gi mooy gii mooy gii waat danga koy toujours danga koy booleek arab yi ko jiitu lii nag raa moo ñëw ci wetam léegi lii àll la waaye àll heure bu raa wala araf yi mel noonu ñëwee ci kanamam boobu àll gi doo ko jàng moom la ñuy tudde ashamsiya mooy àll gi ñu dul jàng gii mooy alqamariya mooy àll gi ñuy jàng gi nga naan àll waaye bii moom doo ko jàng shadda bi ngay jàng kon looy wax hi ar kon àll gi danga koy effacé ci booy jàng hi ar hir hir hir booleel tabla bi moo yaatuwul wa illaa fii lañ ko waroon bind hir hir bismil bismil laa hir laa hir aco nga maas ko muy ro ro ra heure buñ ko maasee ci kaw ro nga koy jàngi ro da ngay taf xim sa giñim ro ro ro laa hir ro xaa topp ci ñu sukkoon ko muy rox rox ah bul wax xaa doo xaa de xaa rox rox rox maa fii kii bu ndaw lay doon ci kaw alif ku ndaw moo koy xëcc rox maa rox maa nga teg ci nuun kasra ko muy ni rox maa ni bismil waxal bismil bismil laahir laahir roxmaani waaye nag moom it beneen bu mel nii mooy ñëw moo tax danga koy koy booleeg moom bismil laahi laahir hir roxmaani aco nga daal di ciy teg mooy comme bii bii toujours doo ko jàng rahmanir ni ar nir rahmanir rahmanir bismil laahir rahmanir ra xiim xiimi waa nag ba ci taxaw sukkoon nga ciy taxawee parce que arab buy taxaw ci sukkoon lay taxawee kon da nga naan bismil bismil laahir laahir rahmanir rahmanir rahmanir rahim rahim léegi kon jàng nañ ko ijji par ijji léegi nag ñu ñëw ci jàng ko ci téere bi ñu jàng ko ci téere bi buñ ko jàngee ci ijib ba pare ñu jàng ko ci téere bi nañ koy répété waale fi may pare bismillahir الرحمن الرحيم وخلين بسم الله الرحمن الرحيم وخلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم মিল bismil bismil lu gën a sew pour ma teg bismil laahir rahmanir rahim andi baax na bismil bismil bismil gis nga alif gii moom la ñuy tudde hamzatul wasl bu dee ne baat bi maanaam boo ko bëggee boole baat bi ko jiitu da koy effacé doo ko jàng bismil laa hir hir gis nga bi doo ko jàng hir laa hir bismillahi rrahmani rrahim bismillahi rrahmani بسم الله الرحمن الرحيم léegi lan lay firi nga ne bismillah ci turu yàlla lay jànge moom laay tàmbalee li may def moo xam jàngala moo xam lépp looy def rek arrahman yàlla mi yore yërmaana ju yaatu ji nga xam ne ci la yërëme jaamam ci la ñuy ci la ñuy wërsëgale ci la ñuy tawale ci la ñuy ci la ñuy joxe lépp luñ soxla ba ci oxygène bi arrahim yàlla mii jagleel yërmandeem ñëpp gëm nga xam ne moom dafay fob nag ñi ko gëm jagleelaat liin nag yeneen yërmande bokk na ca yërëm leen ba jéggal leen yërëm leen ba dugal leen àjjana yërëm leen bay kaweel seeni kër ca àjjana waaye lii mu ñuy def lool nii muy jàng alxuraan ak yu mel noonu lool ci yërmandeem ju jagoo ji la ndax ñoom ñoo ko am ñi ko gëm ayo kon loolu lañuy ñuy ba man ko beneen yoon ñu daal di jëlaat dara subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk رمضان رضا يكفينا رمضان